ay ay ay kii lañ gom gom sa bopp lañ nekkoon comme ñoom demuñu moom te gis nañ koo xam te moom day dem te Touba nekk kon day yoon ñu ñëw jàppale ko ci li nga xam te moom mooy liggéey bi. daw bu am gëm-gëm moom sëñ Fallou mii ndax yaakaar naa ne dëkk bii ñu dëkk ñëpp xam nañ ko muy Touba ci jàmbaateem jàppale gi mu jàppale ndaw yi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci gaar bu ndaw yaakaar naa ne moo tax tey bi mu wootee fii fees dell moo tax yaakaar naa ne tey bépp ndaw boo xamante ne ñëw nga teew fii ci ndaje sëñ Fallou mii boo demee sa koñ da nga gën a góorgóorlu ndax yaakaar na lii lu lu yomb moo koy maye ndax ku ñëw fii tey li ñu fi dajale ci mbooloo bëri na ndaw ñoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bii di Touba te mënuñu koo dajale kon nag ñoom ay liggéeykat lañ ay ndaw yu am gëm-gëm lañ ay ndaw yu am ambition lañ moo tax bi ñuy ñëwee tàllal ñu loxo ne dañoo bëgg a liggéeyal ki nga xam ne mooy président Madické suñu xool dafay sedd torop dañ cee bég di leen wax na leen liggéey baa ngi nii nañu wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan wi nga xamante ne mooy askanu Touba bi nga xamante ne fi la Madické bokk ndax ma dikk kenn wérantewul ne Touba la dëkk kenn wérantewul ne élection Touba lay wootee conseil municipal bu Touba bi ma Madické ca la bokk kon nag kooku yaakaar naa ne doomi Touba la kon nag doomi Touba bu bëggee dara yow ngay doomi Touba la la war mooy nga fexe ba jàppale ko ca loola te li waral loolu ñu war koo jàppale mooy ñëpp gis nañ taxawaayam mi nga xamante ne mi ngi koy taxaw ci Touba. coalition Madické 2019 CNES bi fi nekk. leeral yooyu noonu ñu leeral askan wi ba pare bu nu si jógee wàllu centre de vote yi nga xam ne si mi ngi si dëkk bi su préfet ñëw sensé ko ñu def neuf centre de vote yoo xam ne si mi ngi Touba léegi mu am ay changement sans information ndax ñi nga xam ne si foofu la ñuy voté loolu noonu xamuñu si dara te loogu loolu comme ni ma koy waxee pexey président Macky Sall ak ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye ndax xam na ne Touba mënuñu fi gañ benn élection moo tax ñu ñëw di def ay sabotage ci dëkk bi pour que taux bi nga xam ne si dañ leen ko fi gañ mën a wàññeeku. loolu nag ñun ñi ngi siy dox di si wax lépp lu mu leen jaral ba nu bëgg sàcc élection yi ba tax ñu jël ay centre de di ko décentraliser. ñun tamit dinañ jaaraat foofu sensibiliser askan wax ak ñoom te ñu ngi siy liggéey biir euh, fépp fu commission nekk am nañ fa ab représentant boo xam ne si daan ko fa teg muy xëy suba di def sensibilisation pour askan wi fi nekk mën a jot seen carte d'identité